làmb ji ibbiwaatee ni nga xam ne waa caaray moom ah dinañ jëlaat seen place ci làmb ji. bon fi nag moom yéen moom dañ leen fàtte ci làmb parce que boo nee bàyyi ma njoon wax rëgg rëgg sax xanaa moo xaw ay amet dem ak ñoo ñëpp léegi man daal caaray man man dama yaakaar daal da ngeen gën a féetewoo ci géej gi baay làmb. déedéet ñu ngi liggéey de ñu ngi liggéey di pare parewu te actuellement écurie bi benn écurie la caaray gépp amatul kafeer amul gëm sa bopp amul dara. xanaa loolu lu bees la. lu bees la lu ñu préparé loolu laa lay wax ni li ma lay wax nag li ñu làq moo ëpp. na ngeen bàyyi ma njoon gëm sa bopp a ah, ñoom Reug Reug Ahmed Deme Khadim Ndiaye Ousmane Diop maanaam lépp daal da ngeen ko boole léegi. benn écurie la léegi. écurie Thiaroye sur la. amatul gëm sa bopp amatul dara. ñëpp benn la. am nañ suñuy technicien changé waat nañ daal révisé lañ defaat defaraat écurie bi defaraat toogaay yàlla na ñu yàlla may tal ak fekke rek corona bi juge fi ba làmba ji bu ñu xool. mais est-ce loolu yomboon na. parce que euh, ay champion yu bay ku ci nekk créé sa équipe bopp ngeen dem toog waxtaan ba bëgg boole lépp est-ce loolu yomboon na bu ngeen ko defee est-ce que tamit dina yomb ay mbër yoo xamante ni nii bokkuñu woon fu ñu nekk léegi ñu boole leen est-ce que loolu dina yomb. loolu erreur la woon rek. loolu jafewul parce que ñun fii ñoo bokk suñuy maam bokk suñuy baay. bokkul kii jógewul fële kii jóge fële kii déedéet ñi maam mi mel na la fi jaare yi Ousmane Diop fii la dëkk mu ngi ci biir kër gi bàyyi ma njoon a ngi si ginnaaw isaapu yee ngi nii ci géej kon loolu te partagé ay écrits xaju fi moo tax bu ñu xoolaatee xoolaat suñu bopp xam na ñun fi ñu teg suñu tànk baaxul ci lañu waxtaanaat suñu biir ñun mbëri kase boole ñu ci ma sàmb boole ñu ci ma demba parce que nanga moytu ki lay may 1000 francs te naan laan moytul ma diw waaw kooku dalay yàqal waaw bu ñu dajaloowee nag ñun ñëpp waxtaan suñu biir ba xam ne lii mooy moo ñuy avancer euh, ci lañ defarwaat daal boole lépp nekk benn fi mu ne nii pare nañ daal pare nañ ñun ñëpp ku am ko combat ñëpp lay attaqué waaw jàppale sa combat ba yàlla may la ndam ba koroog ñuy bàyyi làmb loolu daal lañ fas yéene. mais loolu est-ce que est-ce dina yomb parce que yéen tamit bu ngeen boolee ñëpp ku ci nekk équipe bu nekk amoon na tête de su ngeen leen boolee est-ce que euh, foofu tête de mën na faa am ci biir équipe bi. waaw tête de bi kay Xaadim Njaay ku mag rek yaa jiitu donte Ousmane Diop moo mag moo mag Xaadim euh, Njaay mais dañ ko ginnaaw moom moom lañ jiital Xaadim Njaay moom lañ jiital fii mooy tête de file équipe Xaadim Njaay bàyyeegul ba léegi. non bàyyi bàyyi euh, maanaam ay atam jeex na ci làmba mais maanaam moom moom la ñuy def moom la ñuy jiital moom la ñuy def tête de file parce que ay atam jeex na mais am na lu mu dese waaw parce que bu ñu demee géej moom mooy mooy contacté booy yi di leen defal physique di leen entraîner di leen wax li ñu war a def yëpp. bu ñu yokkaatee âge du dellusiwaat. non non non non moom xam nga xaalis moom danaan tane ko wér rek xam nga bëri woon ay blessures waaw ba yàlla def daal finalement bàyyi na làmb Ousmane Diop aussi bàyyi na làmb léegi daal ñun xale yi ñun ñoo fi des waaw ak suñuy rak waa di ñaan yàlla jàppale ñu daal ñu amaat force ñu ñëwaati ci làmb ji